rakk ca waa Géejawaay daaneel moom dong dong dong dong tumbal moo des saa leen ma wax la solution bu yomb la le pouvoir ne se négocie pas te foo fekk nag nit ku naan non man du ma tapet man jëree la tapet Pape Malick Ndour seen ministre boobu seen bëgg saa yi dañ leen wax leen solution bu ndaw dama ne gis nga ñii ni ñu ko defee na ko ñëpp defee noonu wallaahi billaahi wallaahi wa taala li ñuy wax waaw fii kenn du ko taal te loolu di seetaan ñu naan non ñu ngi xoolal géejewaay xoolal ñun gis nga suñu fii kenn du ko taal ku ko nar a taal man may taal rek. taal naa leen local taal leen député gars yi jëkkale leen président li ñuy wax gëmul ci dara gis nga ku nar a def dara doo wax dara te doo def dara man daal géejewaay fee leen la ba jigéen rek bu ñu génnee ba dem ba jublu benn mairie rek dugg ci biir mairie door leen ba ñuy bëgg a dee ñu porté ma plainte ma xëy jour ba ca topp waa mais mbër gars yi itinéraire bi nag nan la ma ne leen dañuy dox dañuy dox di dox di dox ba ma romb buntu kër directeur laa ko jàpp ci lii laa ko jàppoon ci affaire bi amal benn secret bi barke bi daa sax loolu moom mooy dëgg bu ci nekk di wax naan ay marché bi ay gis ngeen na 16 ñu ne moom incha allah rabbi dañuy dem barke Muhammad